بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نحيي إخواننا في نيجيريا ونحيي إخواننا في موريتانيا ونحيي جميع الإخوة في جميع أنحاء العالم في هذا اليوم المبارك الذي نشرع فيه على سبل التي ترك لنا آباؤنا وأجدادنا من الحفاظ بكتاب الله تعالى قراءة وتدبرا وتبركا ودعاء لله تبارك وتعالى أن يرفع عنا آه، كل ما كل ما يجعلنا آه، نخاف وأن يرفع عنا العذاب وأن يكشف عنا عذاب التي أصاب العذاب الذي أصاب العالم وخاصة هنا في بلادنا نسأل الله السلامة شرع لنا آباؤنا في هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف أن نجتمع في المسجد وفي كل مكان حول كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وتدريسا توسلا بهذا الكتاب الكريم أن ينفع الله لنا أن ينفع الله بنا في بركة هذا الكتاب وأن يرفعنا وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا وأن يكون معنا في سر أعمال في سرنا وجهرنا وأن يكون لنا عونا في جميع ما نهتم به في دنيانا وفي جميع ما نهتم به في آخرتنا آه، وهذه هذه الأيام المباركة التي حقا ستكون أيام قرآن في مدينة كما عهدناها من كما عهدنا ذلك من سلفنا الصالحين نواصل المسيرة تشبثا بهذا الميراث العظيم ميراث الإسلام ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث سلفنا الصالحين نستمسك به نستمسك به توسلا وتحققا اننا عبادا لله تبارك وتعالى نسال الله تبارك وتعالى ان ينفع هذا ان ينفع بهذه القراءه المسلمين عامة في جميع أنحاء العالم وأن يرفع عن المسلمين العذاب وأن يعيدهم إلى كتابهم وأن يعيدهم إلى إسلامهم وأن يعيدهم إلى ما فيه خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة هي توحد كما وحدتهم كلمة التوحيد أن توحدهم أيضا في أعمالهم وأقوالهم أقوالهم حتى نكون أمة واحدة قادرين على التأثير في عالمنا كما أثر فيه غيرنا لأننا نملك ما لا يملك غيرنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا قلوبنا وأن يتقبل منا هذه الأعمال الصالحة التي لا نطلب فيه إلا رضاه تبارك وتعالى ولا نستنزل إلا رحمته ومغفرته نيولين ينبقى يب نيجي تنبلوات تلقي بوخمنا دينكودون شي أي باي أكمام ñu ko ngir barkeloo alquran bi ci jamono yi bu jotee ñu ngi dajawaat ci barkelu boobu ci alxuraan jooju di ñaan yàlla lépp loo xam ne ñoom ajoon nañ ko ci yéene ci téere bi ak jàng gi yal na ko yàlla dëggal ci ñun ko yàlla dëggal ci ñun yal na ko yàlla dëggal ci xeetu yonent yàlla muhammad yal na ko yàlla dëggal ci mbooleem ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla delloo leen ñu nekk xeet woo xam ne xam nañ seen bopp li ñu am ci doole li ñu am ci xam-xam li ñu am ci lu nekk wante yàlla ubbiwaat seen xol ñu delluwaat ci seen bopp ne amuñ dara du yem ni ci téere bi du yem ni téere bi loo xam ne moo ñu mën a musal ci euh, musulaay àddina bi yëpp téere bi rek moo ci mën a nekk suñ musulaay suñ ko suñ ko suñ ci langaamoo langaamu nañ ci li nga xam ne yàlla wax ne ku ci langaamu jàpp nga ci buum goo xam ne benn cat gi mu ngi ci loxo yàlla benn cat gi mu ngi ci suñu ah, loxo téere la boo xam ne boo ko jàngee da nga xam da xam histoire téere boo xam ne boo ko jàngee da xam sharia téere boo xam ne boo ko jàngee dana ànd ak yow bëdd wala aljanna téere la boo xam ne itam képp koo xam ne nag dangay wax ci téere bi loo xam ne lu duur noonu kooku na nga xam ne mu ngi xeex yàlla te ku yàlla yàlla na yàlla gañe la te ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla musal ci xeex ak yàlla yàlla nañu yàlla may ñu nangu ay ndigalam yàlla ñu yàlla may ñu nangu téere bi yàlla ñu yàlla may ñu xam lu nekk ci barke téere bi yëpp ak lépp lu ci nekk ci barke itam yàlla na ko yàlla wàcc ci ñun yàlla na ko yàlla dotti ci ñun yàlla ko yàlla dotti dotti ci euh, mbooloo yi nga xam ne ñooñu ko tëralal yal na yàlla yokk seen yool yal na yàlla àggale leen seen yool yi nga xam ne ñoo tabax bis bi nga xam ne dañ ciy daje te dara dajale wu ñu lu dul alxuraan yal nañu yàlla dimbale yal na yàlla àggal yi yool bi ci ñoon yal ñu yàlla may barke alxuraan yal nañu yàlla may leeru alxuraan yal nañu yàlla may wërsëgu alxuraan yal nañu yàlla yëkkati ni mu yëkkatee alxuraan te yàlla bu mu ñu wàccee yal na ñu dëgëral te yàlla bu mu ñu nooyal yal nañ ñu may ñu nekk xeet woo xam ne xeet wu dëgër lañ xeet wu ñeme nañ xeet wu mën a jàkkarlook lu nekk la te loolu ci téere bii lañ ko mën a amee yal nañu ko yàlla defal yal na yàlla dimbale <coughs> Sénégal yal na yàlla yëkkati Sénégal yal na yàlla dàq ci Sénégal feebar bi nga xam ne mi ngi fi muy corona bi yal na ko fi yàlla dàq yal na yàlla may ñu ay góor yoo xam ne góor yu dëgër lañ góor ñu ñemee jàkkaarloo xew-xewi àddina te mën cee def loo xam ne dina doon njëriñ pour ñeel xeet wi yal na ñu yàlla defal loolu yàlla na yàlla yëkkatil ñu suñu suñu réew yëkkatil ñu suñuy doom eh, yaral yaral ñu suñuy doom kenn mënut a yar yàlla rek a mën a yar yal nañu yàlla yaral suñuy doom yàlla nañu yàlla taxawal suñuy doom yal nañu yàlla dimbale ci suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy jarbaat yëpp yal yàlla taxaw yal yàlla taxawu leen dëgëral leen ndax ñu mën a taxawee seen diine ndax ñu mën a tax taxawee seen réew booy taxawee sa réew te taxawee ko diine taxawee woo dara boo taxawee sa réew kese kese réew ngay taxawal te boolewoo ci diine defoo dara boo taxawee diine nag réew mi dina yëkkatiku ndax ci diine jooju yëkkatiku bon yàlla nañu yàlla may ñu jàpp ci suñ diine ji ñu fonk ko ñu nekk ci moom ndax nit moom bu nekkalee yàlla rek yàlla nekkal ko ndax loolu la wax bi wax man kaana lillaahi kaana allaahu lahu bon yàlla ñu yàlla nekkal yàlla nañu yàlla nekkal ñun tamit yàlla nañu yàlla xiir may ñu kattan buñ ko mën a nekkalee ni nga xam ne ci lañuy ñuy àggee ci ngërmandeem amuñ benn kattan amuñ benn doole waaye am na lu yàlla am na lu nekk kayit gii euh, imaam imaam war ma léegi bàyyi nga ci ñaan yàlla ñaanal jumaa ji yal na ko yàlla dundal ci jaamu yàlla te yàlla bu yàlla indi loo xam ne bidaa la yàlla bu fi yàlla indi loo xam ne lu ñaaw la yàlla bu ko yàlla def ci jumaa ji te incha allah gannaaw ñaan na ko te moo ci nekk ñaan googu dinañ yaakaar ne yàlla dinañu ko may ci ci eh, ci suñ dund yàlla dinañu ko may ci suñ njaboot yi nga xam ne ñu ngi ñëw suñ gannaaw yal yàlla dëgëral leen yàlla yàlla taxaw leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu rahmaani rahim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 mu doon njàng moo xam ne te ngeen léegi ni ko xalifa bi waxee mu di bàyyi moo bindoon lettre boobu nga xam ne imaam al akbar imaam Cheikh Tidiane Seydi Aliou Cissé eh, jox na ko ko léegi incha allahu rabbi ci ay image di am ouverture bi ci Alfayda TV ak ci site internet bu rajo Alfayda ci ay image bu sobial yàlla léegi ci kanam tuuti mu ngi noonu na ñi teewloo آمين آمين آمين آمين آمين المغضوب عليهم ولا الضالين صل على صراط الحمد هاجر الصراط صراط تفتح لنا تغلق بها عنا وشر وتعصم بها ولينا آمين الحمد لله alhamdulillah mu ngi noonu kon eh, tax eh, jàng nañ kamil Euh, fii ci jumaa yi Medina Baye ci teewaayu xalifatu saahibil fayda moolaay cheikh euh, Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima ñas ak euh, imam mi nga xam ne moom moo ubbi jotaay bi fii ci jumaa yi Medina Baye jangeen jëf mbokk yi kon ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax si ànd bi ngeen ànd ak Alfayda 90 point 1 jaajëf Serigne Gueye micro bi Mouhamed Bassirou Niang ba ajuma incha allah